Je remercie Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chacun, chacune en ses titres grades, je voudrais vous saluer et vous dire le plaisir qui est mien à me retrouver ici parmi vous pour parler du Sénégal Idrissa en s'étant exprimé en français je vais moi alterner pour je suis membre du F24 je suis membre de Yewi Askanui. et pourtant je suis à ce dialogue-là en tant que Taxawu Sénégal je ñëw dialogue bi parce qu'il s'agit du Sénégal me bokk ci dialogue bi parce que je fais partie dans cette salle de ceux qui pendant longtemps et toujours ont compris que lu nekk dañ koy waxtaane dañ koy doxal pour djubo ci parce que réew mi rek mo am solo Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis membre de l'opposition que vous dites radicale. Aujourd'hui, cette frange de l'opposition n'est pas ici lu tax nekk war nañu interpeller ku nekk ci je vais essayer de tenir les trois minutes les cinq minutes alors lu tax ñëw ñëwuñu mooy moom am solo loolu la ñu parce que dialogue est am yépp nous. pourquoi la défiance de nous manifester pourquoi le doute bi ñu manifester ba tax tey ñëwuñu man rek ma ñew ci yewu askan yu fekkee et j'assume ça pourquoi monsieur le président lool lañu war réfléchir parce que du guleet ñu dialogue du guleet ñu tok di wax daan na ñew ñëwuñu ñu bari liñ lay wax moy dara beesu fi dara beesu fi y a aucun sujet nouveau bu fi bees ñu ngi ci dialogue bi depuis toujours ñeent ak juróomi problème yi nga xam ni moom moo amal solo moo ñu amal solo dañ ko waxtaane waxtaane waat ko waxtaane waat ko te amul solution moo tax ñu bari ci ñoom ni ma ñun duñu dem man leen déet waxtaan nag moom du am tàyyi du am sonn da ngay waxtaan rek di waxtaan rek di ngeen juboo ñun loolu la ñu gëm moo tax ñu ñëw fii monsieur le président la question du troisième mandat du lu bees il faut que nous waxtaane ko il faut que Nous nous ko mënul que ñépp bok ci élection bi mënul Nous ñépp bok lu war la que parrainage bi nga problème la fi day indi distension, il faut que nous waxtaane ko mënul li aussi les modifications des articles 57 29 30 et autres mënuñu ko bañ waxtaane parce que problème la li mënul ñàkk mooy ñi nekk ci kaso yi presque cinq cent personnes ay politique ak ay journalistes mënul ñàkk parce que nag xam nga réew mi su fekkee dañ ko bëgg a doxal il faut que ñu bañ ragal di waxante dëgg suñ nangoo waxante dëgg rek danañ avancé fii li am solo mooy en tout cas ñun suñu tawaay dañu ñëw pour liggéey pour waxtaan pour juboo pour Réumi Diom Kanam. Parce qu'il faut que nous rassurions ce pays. Il faut que nous réconfortions les populations. Il faut que chacun comprenne que Réumi Ken Momoko, dañ koy waxtaanee pour mu kanam merci beaucoup M. Khalifa Ababakar Sall wax donc ci travail du Sénégal mais aussi nekk le membre de Yévi Askan et di F24 F24 nag xamaguma lu mu doon lu muy tekki mooy les anti troisième mandat c'est ça waaw ah, dugal leen ko ci débat bi rek